وعطائك وهباتك وصل وسلم على سيدنا محمد عدد كرمك وإحسانك وصل وسلم على سيدنا محمد عدد توفيقك لعبادك وصل وسلم على سيدنا محمد عدد عفوك وغفرانك وصلي وسلم على سيدنا محمد عدد رداءك لمن قام بحقك وصلي وسلم على سيدنا محمد عدد عذابك لمن أشرك بك صلى الله عليه وسلم وقيل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ndax xalifa jàmm la si ñun si dara yamandoo wax ne am jàmm ma dara la yéex te xalifa yaakaar naa suñu jàmm la kon kiiraay la si ñun kiiraay boobu yàlla na yàgg lool xarma yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mboolem ay rakam Cheikh Mamadou Habib Cheikh Mamadou yu góor ak yu jigen ñu ñep ñu leen ñaanal jam sax ci ñom sax ci ñu kaddu yi fi jaar yep mat na ci kaddu doy na sax wolis bi ñu bëgg wax ni Mamadou Ahmadu jaar na fi yàgg xam-xam loolu rek doyoon na ñu bëgg a yóbbaale. Cheikh Mamadou Moujtaba jaar na fi yàq xam-xam loolu rek doyoon na suñu bëgg a yóbbaale. xanaa dañ ciy dolli rek ñu jëriñoo ko ba déwén ña koy teewee yàlla ci bokk xorma yonent ñu indi benn tomb benn tomb buñ bëgg waxtaanee tomb boo xam ni bëri na suñu jamono jii ñu nekk lool tomb boobu mooy alkibu mooy rëy waxuma rëyu pataate ah nit mën na tuuti lool ba mel ni càlla bone fekk rëy gi may wax ni mu ci moom nit mën na rëy lool ba mel ni tam mu rëy te fekk rëy gi may wax mu ci moom waaw ndax li mën koo jëfee. tey ki may wax mooy day xool xool. day xool. tuuti mën na ko am. waaye ku rëy itam mën na ko am. ñëpp bokk. moom la ñuy wax ak kiidu mooy rëy dañ koy wax al azamatu di màgg màgg lu ci sa kaw mbokk doomu aadama dañ koy wax ak takk buuru boobu ci gën a bon mooy rëy rëylu rëy rëylu mu baax tomb boobu laa lay indi ndax tey jii jàll yëpp di bokk toog xeetu Sayyidina Muhammad la leen yàq ci yooyu la bokk. Bakkaar la boo xamante ni ci saay-saay boobu ñu naan Iblis la ñu ko wàcc moom rëy. muy bàkkaar bu bon lan mooy rëy mooy dellu dëgg xeeb doomu adama waaw batarul xaqi wa xamtu naasi loolu yéen ci loolu jëñ dëgg ba pare xeeb say mbokk doomu adama loolu mooy rey Isaaka màggu ci kaw doomu aadama yi ñoom nga leen di doy rey ci koo xam ne ku tedd askan la xamante ni askanam daa suufe askan bu suufe amul ay waxin la rek borom xam-xam bi mu ngi rëy rëylu ci ku xam dara ki am koom mu ngi rëy rëylu ci ku am dara taj yooyu yëpp baaxul déedéet yëpp dafa am kon nañ ko muy yàlla moom wax ci alquran keroog ba mu amalee maam Adama ñëw dëkkal ko biir àjjana dafa wax ay ay malaayika ne ne واسقنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلى إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين kon awale moom aadama dëkkal ko ci àjjana dafa wax mbooleem malaayika iblis abba wastakbar xam nga lu tontu yàlla ndax xalaxtanii min naarin moom wa xalaxtahu min tiin maa ko gën ndax man dañ ma ci safara moom nga bindee ko ci soof bari nit loolu yàlla ju mu anam anamu moom iblis mu nga safara mu ko dañ ma ci ci ci ci ci safara moom nga bind ko ci banit mooy suuf li ma ko suñu yoon li alagoon tey di njëkk yi tey di jàll li leen alagoon yëpp ci rëy la sabab nit yàlla noo ay nitam qaala rabbi inni daawtu qawmi laylan فلم يزدكم دعائي وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أسابيعهم في أذاني واستغذوا ريابهم وأصروا واستكبروا استكبارا قولوا لنا رك هنا هو waaye dañoo gengar rëy boobu moo leen toskale ñun ñëpp ñu xar rëy kenn na ko jaboo mooy suñu mu ndax yàlla mooy kabiru yàlla mooy mutakabbiru kabiru ci zaat bi la dellu mutakabbiru si feexlu bi la yàlla dafa am ay asma am nañu wooyee ismu zaat am ñuy wax kabir ak mutakabir kenn rek ko jegoo mooy sunu borom ala mutakabbiran لعصمته يا متكبر loolu rabul borom bi ala kawe na mutakabbiran bi moom ñu aji rëy rëy bokk tamit de lu tax muy rëy mu ne asmati yi ngir màgg di màgg moom yàlla moo tax muy rëy rëy yaa mutakabbir xëy yow aji rëy rëy mos a ñëwee yaa mu tëkkal yaa te yàlla béy yow nataakoon bi yàlla yow yàlla. bàyyi ko mu dolli ko beneen baytu ne ko rabbi taala li kibriyaa ak ismaala yasir ñu soppeeku dara jamono mawaadi'a masaajida kibriyaa ak makaarima منفردا يا متكبر يا قهر يا الله من قرات بي يا سون بروم حسبنا يا ولي داوبي حسب يا متكلم يا ربي دغن نكو تعالى كاينه جمغا على كونك يا يالله منفردا من مغادي بديو

yaa qahaaru bay yow na daa koy yàllaahu yow yow comme yaare yi nag nekk mu tege daaka abduka naajisan li millatihi yaa mu tege yaa mu jib yaa hmm? ku daaka woona la habdu ko sa jàpp te muy si jëlaat yi ma doon ah gisal mbir mu ngi aji lottu lu tax mu lottu li billati Ya mu tëkkër ko yow aji rëy rëy mu yow aji tedd yow mu an mislin wa an kufurin yaamuditeɓiru yakulusiyam te aleyde jommuga almuslim muliskem won kufoyin ak nawle wala jekkumdoho kufoa aha yawamuditeɓiru eyyew ajireyeyo ya kudusu eyyew selatumi yallahu yo yalla ko noon yalla ko jaɓo وقل مننا إذا رأيتم المتواضعين فتواضعوا له وإذا رأيتم المتكبرين تكبروا عليهم buñ gisee jàmm buy toroxlu toroxlu na ak moom bu ngeen gisee jaam ñii rëy leen seen seen taw rëy leen leen si seen taw waaw ku rëy leen si sa taw nga rëy leen ci kaw waaw nga jaakaar xam nga lu tax kenn rek moo ko jagoo ma suuf nit dañ ci diw la bokk diwooy baayam diwooy maamam nga foog ne yàgg ñëpp ba naw woo kenn kenn kenn kenn loolu mooy rëy nit yàlla dana la jox koom bu bëree bëri bëri bëri ba tax naw woo keneen koo gis xel ci rëy ko di dem yàlla la jox xam-xam bu bëri bëri bëri bëri bëri bëri ba tax nawloo kenn koo gis nag te ñun yëpp dafa xaar waaw. moo tax yonent bi ne nag tawaadu maa al mutawaadiina fa inna tawaadua maa al mutawaadiina sadaqatu waaye wa takabbaru maa al mutakabbiriina fa inna takabbura maal mutakabbiriina sadaqatu nee na toroxlu leen ànd ak képp kuy toroxlu ndax toroxlu ànd ak kuy toroxlu nee na ci ku saraxe yoon ba ci am ku toroxlu ci sa kanam nga toroxlu ci kanam dañu am yoon ku sarax waaye itam leen ànd ak képp kuy rëy ku rëy leen si sa kanam nga rëy leen si sa réylu ba mu réylu yow saana yàlla jox la kon rëy baaxul moo tax sëñ bi ko xali sax bay Dakar min kibrin wa min xasadin mahdi muslim sellal sa jaam bi sa jaam bu xeew bi te mooy si jëlaat yi mu doon min kibrin ci rëy xol xol mooy rëy moom moo rëy jëmm rek rëy xol laa wa min xasadin ak kañaan yow yàlla man la koy ñaan bi mahdi rusdika di seetlu sa njub bi yow yàlla. bari sa koy dakka la ko wax bari sa koy dakka min kimin wa min xasani kon rëy baaxul nañ ko bàyyi ndax yàlla bu ñu wax ci alquran ne sa asrifu an ayati alladina yatakabbaruna fi l ardi bi xayri xaq وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. nit dana tax nit ñu am diina yàlla rocc ci moom diina ba set wecc wecc wecc nga fekk mu ngi dugg ci jàpp bi di génn di wax lu baax lu def fekk am dara dana ci yàlla musal war sëñ bi ñaan na ko yokkil jamaati الشيطان وطاغية الجهل والقسرة لا تواب يا رب. ما يستقبل الغي ما يتابع ñu moytu ko ndax baaw loolu yëpp nag saytaane ko def nit rek saytaane bu ànd ak yow ci rëy rek ngay def ndax yéen di salaay salaam nee na saytaane dina dox daw ci biir comme muy deret di dawee ci biir yaramu nit

هو في نفسه ضعيف وفي أنفس وفي أنفس النبي عظيم ومن تكبر ودعوا له هو في أعين الناس صغير وفي نفسه كبير حتى له هو أهل عليهم من كلب أو خنزير ne la képp koo يا ne toroxlu yow mi toroxlu nag ci bëti nit ñi bu doyee di ngay doon bu doyee di ci boppam fi nafsi yi daifun ngay doon moom ki torox waaye ci bët nit ñi kabiir la fay nekk ensin ku mag lay waaw toroxlukat ci jëmmam ji moom daif lay waaye ci jëmmi nit ñi Nassim lay lay nee na képp koo xam ne yaa ngi di rëy rëy yàlla dana la suufee ba si suufu suuf ci bëri nit ñi ku ndaw ngay nekk ci sa bëri bopp bi ku màgg ngay nekk loolu yaay waay mu ne ba moom sax moo gën a doy def ak. wala moom moo gën a doy di bàq moom kii rëy jikko la joo xam ne jikko bi bon ñaari saaba Cheikh Ahmed Tidiane radiyallaahu anhu ñoo toog ci jàkk ci géewu wasifa bi di xàccoo place kii naan maa war a toog fii kii naan maa war a toog fii ci biir jàkk te ñun ci biir jàkk bi kat ba Cheikh ñëwee ñu wax ko ne ko diw ak diw dañ doon xàccoo place ci biir jàkk Cheikh ne leen tilka daaru aaxiratu najcaluha lilladina laa yuriduuna uluwan fi l ardi wala fasaada wal aaqibatu lilmuttaqin ne li gis nga fi ñu jëm kër la boo xam ne dañ ko defal képp koo xam ne ni daan na suufee boppam ci suuf ak képp di xatoo place place du dara ba léegi yaa ngi koy gis ci imam rek moo am place imam rek moo am jàkk moo am

loo mën a sonal sëriñ sax yaakaar moo place ay dina sasam ko ak loo mën a sat ak boo mën a doon rek jàkk moo place imam rek moo am place ci biir masjid arab da nga gis ay ay pompale ay surafaaw ay olomaaw ay borom 零零个，滚一边！滚一边！滚一

moom moo ñëw yow na. kon jàkka am place nga ne imam. yow rek fa am place wala borom xam-xam. jëlee na ci Abi Hurayra mu ne maa min aadimi ilaa fi rasihi xikmatu bi yadi malaki fa iza tawaadaa qiila li malaki irfa xikmatahu wa iza takabara qiila li malaki da xikmatahu ñu ne aw benn doomu aadama lu nekk na ci fu tolloog boppam benn malaaka boo xam ne dañ ko jox xikma mu dégg loolu bu torox looloo ñu wax malaayika bi ne ko yëkkati xikmaam mu dem ci kaw kaw te bu ko wàcceel xikmaam mu dem ci suuf suuf kon rëy rëy lu baaxul dañuy ci torox noonu nag bokk na ci toroxlu sa moromu ji nit nga njëkk ko wax asalaamaaleykum. nee na loolu sax mooy bopp toolam sax mooy jiim ak moo mën a toll koo mën a daje comme nit la boo ko rombee jëkk ko nuyu bokk na si toolam ndax jamono ji kenn du nuyoo doomu diw laa bu doon nuyoo yow yaay kat doomu diw moom du nuyoo salaay salaam mu gën ci nit ñi te daan na romb ay jur yi daw ñu ne asalaamualeykum yaa Sibiano ci beneen riwaaye bi yaa Subbaano kon bokk na ci jàmm yi toroxlu nga romb nit ñi njëkk ko wax asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. nuyoo mu màggee woo ko màggee woo ko màggee woo ko màggee woo ko ba wóorul nuyoo loolu xam nga ko

jamono jii ku romb sa nawle yaa ngi koy jaay meneen ba boo ko rombee doo ko dégg te loolu yéen tamit déglu ko. boo rombee da nga war a nuyu ndax yéen tamit fu mu romb bu ne bu ndaw ndaw ndaw dana wax asalaamaaleykum kon nañ ci bàyyi xel. Thank you.

riwaay bi ñuy wax abidu bani israil kat yàlla ci bono israil ci ñi ci dakk jaamu yalla ci la bok waaye xale am mu itam ñi gën a mën a ci bono israil ci la bok xayo di dox romb jaam ko bi yàlla banu jaamu ko yàlla fu mu toog niir moo koy teral niir moo am fu mu toog rek niir day ñëw teral bu tàng mu xale yow romb ko daal di tourné waat waaw man may xale yow bani Israël yàq rek moo sama mbir. kii muy aabid bani Israël ñi dàq yàlla ci bépp ba noo Israël ci la bokk ma teem toog ak moom ndax yàlla jéggal ma yërëm ma mu wax loolu ci kanam moom xale ya mu dëpp toog ak aabid aabid bi wax ci kanam ne man may. jaamu ko du yàlla bu dàq jaamu yàlla ci banu Israël kii mooy yàqkat bi dàq yàq ci banu Israël man may toog ak moom. xanaa réunion la. teg na ko yàlla wax yónnete banu Israël nag demal ci Xaryam ak Aabid ne leen lépp luñ jëfoon si pepp jërëjëf yàqu nañ sosaat jëf waaye lañ jëfam moom yëpp zéro nañ ko wasaat waaye boo demee na nga xamal xañam rek jégal naa ko boo demee mu ànd ak banu Israël ne ko lépp lu mu jëfoon ci lu baax nen la mosu sax jëf niir ba daan nekk ci kaw aadit bi yàlla taxal ko indi ko ci xaria léegi ixtibaara ci ñaar ñoom kii rëy a tax ñàkk lépp amoon ci wetu yàlla kii toroxlu moo tax mu am lépp lu baax ci wetu yàlla. kon lu yéen ci waxoon ne képp ku toroxlu yàlla yëkkati ku rëyeeyu yàlla suufal yàlla yàlla musal ci yéen. yéen bi ne ñeenti yii may bëgg a tudd yàlla du ko jox kenn ku mu gëm bëgg waaw. ñeent yi may bëgg wax nee na yàlla du ko jox ku dul ki bëgg bi ci njëkk muy as sumtu mooy nopp noppi ndax da ngay noppi rek continuer déedéet lu baax nga wax lu bon nga noppi ndax ñeul benu jaamu yalla moy nopp nopp asan basri ne man kazura kalamuhu kazura sahatuhu ومن كذر ماله كذر إثمه ومن ساء خلقه عذب نفسه لأن كنت كنت تجاوب بريرك كنت تجاوب بريرك تجاوب بريرك فكس بريرك képp ku am alal bu bëri sa bàkkaar bëri képp ku sa jikko ñaaw yaa kon làmmañ dañ koy téye ndax dañ koy téye man déedéet lu war a wax waxal lu warul wax nga ji nag jamono yi ñi xam nga wax ñi xamul mu ngi wax ñoo jëm doon wax

yow yëpp war a ñu daje. Sufyaan Asawri moom mu jël fett jiit ko nit jëm ko tël moo gën ci moom mu wax ci nit lu ñaaw ñu ne ko ndax mu ne ndax fett naa ko diit nit jëm. mu mooy waaye làmmiñ bi du mooy duñ bàyyi xel ci wax sëñ bi dana wax ne wa min uyubin kasratul kalaami idi lisaanu musbuhu bil xaami làmmiñ day boobu baaxul Luqmaan al Hakim jaam loolu ci Abasiya daf ko jox kàtt ne ko demal nga rayal ma ko indil ma ñaar yi gën a tee ci gàtt bi waaw ci gàtt bi mu rey gàtt bi dem indil ko xol bi ak làmmiñ waaw mu ne ko la moo doon indil ma xol bi ak ak làmmiñ bi mu ne lépp lu ñuy lekk xol ak làmmiñ si gën a tee bu fekkee tee nañ laa wax lépp lu ñuy lekk xol ak làmm ñu si gën a bon bu fekkee bon nañ laa wax kon nañ ñëwee suñu làmm làmmañ ci wax loo xamante ni lu ñaaw la si naawar radiyallahu anhu dafa xool benn xale ne ko إن وقيت شر الثلاث فقد وقيت شر سباب ñu ko budee fegal nañ la yow ndaw si yow ndaw nii nii nii xay ñett yi may bëgg wax fegal nañ la saa yu ndaw dootoo may ñu ko barat bat mu ne ko laqlaqika buñ la fegalee sa ay yow ndaw ak ban mu ne ko wax sa sadika يعني فرجك مسبي وقطبك يعني بدنك مسبي ko pir na ko yow ndaw si am nga jàmmu xale jàmmu xale am nga jàmmu xale di nga dund ci dund ko jeey lépp looy wax mu doon lu sa biir bi lépp loo ci dugal mu doon sa pëy bi fépp muy dugg mu doon lu lew waaye la war a wax la wartoo wax tax ndaw gàtt baaxul lu lekk nga lu daga nga lekk lu xaar nga lekk day tax ndaw gàtt baaxul ñun sama morom yi ndawee sa pëy bii nga nam mel ni jaas fu ne ngeen dëgg fu dugal day tax ndaw yàqu ñett yëpp da ngeen ci bàyyi xel ñu ci bàyyi xel bu baax ñett yi làmmañ biir buy bu yàqu ci ndaw ci loolu la jógee nit dafa am lu moom am lu moom dafa am lu dagan am lu xaraam lu dagan yàlla ne la defal lu xaraam yàlla ne la baax am na loo xam ne yàlla wax yàlla mu ne bu ñu demee bàyyoo waqoolu linnaasi xusnan jamono ji amatul de wax ci nit lu rafet amatul eh. léeg-léeg sa ngorom mu nit bu jëw yaa muy déggal sa bopp laa wax xam nga picc yi wax sa ñoom ñi ngi sàpp ñoom ñoo la tele ni cogo cogo te li ngay wax yow bàkkaar la baw si der sa sa deru naw la rek di di di di di ko li olof Ndiaye busa busa bu sa bu sa boo rayee say mbokk lu tax mu ko xeex ñu est-ce lu kan, ya? kan, ya? di mana? rey moo la yonent bis mu warloo ay nitam ne na ñëpp woor di sàkku ci yonente bi woor naa ba ngoon heure dog jot na ma dog moom la dogal am benn waay bu jógee këram ñëw mi ci moom ne ko dama am ñaari jigéen yoo xamante ni ci sa digal lañu wooree am nañ kersa ñëw ci yow dama bëggoon nga jox leen digal pour ñu dog yonente bi ne leen woorum de wooruñ de mu ne ko ah wooroon nañ ndax lekkul naanu ne ku woor naka lay wooree di am nga nekk sa yàpp deru nawle di ko lekk yonent bi ne ko boo demee nga digal leen ne leen ñu looju looju xam ngeen looju nañ mucc am demee ne mu Muhammad ne na ngeen looju ñaari jigéen yëpp looju benn lumbu deret génn ku ne si ñoom sa biir lumbu deret moo génn dëppaat ñu wax ko yonente bi ne wax naa leen ñu looju waaye bañ loolu yow lumbu deret moo génn ku nekk si waat naa ci yàlla yàlla mi nga xam ne sama bakkan bii mu ci loxo bu fekkoon dafa des si seen biir ñoom ñaar safara lakk leen ba jàpp te dañ doon jëw dañ doon jëw bëgg set nekk si sa deru sa deru naaw la rek kon kooku nañ ko bàyyi. day yàq jëf. kon nit ñi ñëwee suñu laaj mooy ñii di ci wax du rafet ndax yàlla loolu la ñuy dégg ba kóolu di naa si tos na. boo demee bay wax ci nit waxal lu rafet boo xamee ci moom safaan nëbbal ko ko ndax man satara naa sa fi dunya satarahu llaahu fi qiyaamati képp ku sutural fii nit ci am na bi ñu nekk nii nii ëllëg yow am yàlla na suturaal nekk li naa fa benn bis yonent yàlla noox ba mu yettee gaalam ga yàlla def na ko sóobal ci gàtt gaal bi fas bu fii an min kulli zawjayni isnayn loolu la ko waxoon dugalal ci gàtt gaal gi ñaari xeet yoo xamante bu nekk góor ak jigéen ngay jël dugal nit góor jigéen dugal mala yi góor ak jigéen xaj muus ñu ñëpp góor ak jigéen mu ne leen nag bu fi kenn sëy ndax bu ngeen fi sëyee doom juddu fi gaal gi nañ suux ñuy dem di dem ba si kanam xaj mu koy muñ xaj sëy ba xaj sëyee muus bett ba ko mus méttee ñëw ci yonent yàlla noox ñëpp yow de dama terewoon ku sëy si gaal waaye xaj bi moom woo ko nga yedd mu woo ko laaj ko xaj mu yedd ñuy demaat di demaat ba si kanam xaj mu koy muñ mu sëyaat ba mu sëyee muus mu ñëw ci yonent yàlla noox nag xajje sa yàlla de mu wóolu xaj daal di ko yàq. kër bu ko waxee nag xaj bi di ko xaj na ko sëy moom na ko yow yonent yàlla nga doo ñaan yàlla yàlla dogal li may wax ni bu fekkee mu jox ñu preuve bu leer nañu yonent noox ñaan. ñi demaat ba si kanam pàcc say. ba pàcc say daal di kole mënu wàcc ndax yonent ñaanoon na ko te yonent lu mu ñaan mu am mënu wàcc muus ñëw gis ko. ñëw ci yonent yàlla naax ne ko pàcc sa yàlla. yonent yàlla na ñëw fekk xaj bi mu ngi kole mënu wàcc. maga ah, propam na wa ay gàcca na wa muus xaj eh, ñaan yàlla maa lay ñaan weer gi ma muus weer nii maa lay er, ñaan heure bu muus yéegee iya, iya, ci ko loolu am na luy yàlla di jàngale foofu li yàlla jàngale mooy ñu suturaalante borom téere bi mu ne nañ nañ itibaar ci loolu képp kuy weer suturay jàmm fii ci àdduna yàlla dina xaawi kon nañu suturaalante wattu ci làmmiñ ci wax lu baax ak ci jëf lu baax ndax làmmiñ day boobu day boobu baaw gis ngeen gis ngeen jën am am làmmiñ jën am na làmmiñ te amul làmmiñ laaj bi la ko sa ba yàlla bi ne maam aadama daf ko dëkkal bi àjjana ba mu ko dëkkee bi aljana mu wax mboolem malaayika ne leen su jootal leen maam Adama malaaka yëpp su jot ba mu def iblis mooy du su jot yàlla génne ko aljana génnal dàq ko iblis génn di wër kim njëkk dem moo ci géej gi géej gi kim njëkk génn la ba mu ñëwee ne ko yàlla am na benn bi nekk mu bind ñu koy Adama nii la meloo yàlla daganal ci moom mu rëbb rëbb géej gi ak rëbb jiir ji bu lay gis dana jàpp kat jën itam daw dugg yéebaale ko mbokkoon yëpp yàlla jël làmb ñam moo tax jën amul làmb kon ku nekk war na sàmm sag làmb ñëwee ko ci wax lu baax dafa yonent bi ne kam min kalimatin zalabat ni'matan waaye wa kam min kalimatin jalabat ni'matan nee na bëri na benn benn wax bu biti ay xéwal yu bëri waaye bëri na benn kàddu itam bu dàq xéwal yu bëri kon nañ ci bàyyi xel bi moom la waxoon nee na ñeenti yàlla ku ko bëgg ñaareel bi mooy ak tawakkul muy wakkilu ci yàlla si ñooy na ko rabbi tawakkaltu sirran wa alaniyatan alayka yaa rabbi wala takilni ila nafsi ayati qati aslih umuriya وكتب ديني ونفسي ولوازمها إليك يا رب يوكل شيئا لا ñaareel bi mooy wakiilu ñetteel bi mooy ak tawaadu mooy toroxlu boo duggee ci yawaati comme ni yawaati jeexee sëñ bi luy ñaan toroxlu rek ngay dégg daaka abduka mubtaran li nimdatihi ajib waxee daaka abduka aajisan li zillatihi yaa mutakabbir yaa matin yàlla يدعونا المكين ضعيفة من تعليم صفوتنا يحلك الصرف يا حليم يا رب إذن ضعيفة ضعيفة تعيلوا طيب بني تكن تيروا يا الله وتروا خدوع له مكين ضعيفة من أداب خلوته بحلك القدس مكين ضعيفة من أداب جلوته بحلك الصفي مكين ضعيفة من إفسار قدوتنا

jooy jooy métti wala yonent yàlla Moussa mu départ fekk ko muy jooy jooy métti moo wax yàlla ne ko damaa sab jaam mu ngay jooy rek ragal yàlla ne ko bu ay rongañam jaxasoo nag deretam ak yuuram di wàcc di wàcc di wàcc jeex man yàlla du ma ko bu tàlloon loxoom ba loxo bi wadda muy ñaan ba loxo yëpp wadda ci suuf dama ko jëlal Moussa ne ko lu sabab loolu loolu ko yuhibbu dunya dafa bëgg am àdduna duñ ko def ci xol déedéet duñ ko def ci xol kon nañu bàyyi xel lii lii lii yonent yàlla Luqmaan wala ñu wax Luqmaan rek ndax werante am na ci moom ya bunayya aqim salata wa'mur bil ma'ruf wanha anil munkar wasbir ala ma asabaka inna dhalika min asmi umur waaye noonu lay digal wala tustahi wala tustahi xaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha inna la la yuhibbu kulla muxtaarin faxuur waqsid fi mashika واغدد من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير bu jégal sa lëx di réer lu ci kaw nit ñi bu ko def am lay digal taxawalal julli li digle baax dal tere lépp loo xam ne yàlla boobu sa bi bu ko jégal ci kaw nit ñi di leen jaay nga ne naan yonent bi yàlla la doomu nit ku baax man bu ko def bul dox ci suuf di rëyéelu bu ko def ndax yàlla bëggu kuy rëylu bëggu kuy bëggal booy booy dox na ko tànk bum gaaw bum yéex booy wax waxal wax ci suufe ay mel ni mbaam muy wax bu ko def bu mbaaw ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تغرق الأرض ولن تبلغ الجبال toog la yàlla ne booy dox si suuf doxal naan kat ut bëggoy bu bëggoy réer ndax yow mënoo xotti suuf ba jot suufu juróom-ñaar mënoo kawe kawe li ci kaw nit ñi tam ba jot ñoom waxtu lu bañ nit rek nga mën dox nit rek nga dox nit kon dox ci dafa ne ci ku si, gën fii ku gën bu ñëwee yàlla na wax fi toog nii ku gën kenn du wax kenn kenn ku ne na sa bopp ku ne na looy yeewoo ku na kenn mu fi wax gën yow nekk ki gën kenn xam ko muy Sayyidina Muhammad te li yàlla bindoon moo di oyof Muhammad mosu mosu jéggi nit baatu nit comme nii ku mbooloo mooy lay toog bu fekkoon garab gaa ngi fii nii garab gi mooy buddee bu dem kanam Muhammad. sallallahu alayhi wa sallam. mosul jéggi baatu nit mosul am raw moom Muhammad. te yàlla bind yëpp moo ci gën. ay fi ngay dugg ci jàpp jéggi premier sax deuxième sax troisième sax cinquième sax sixième sax huitième ba ci imam mais yow yaay kan yow ba tax ngay jéggi nii ah. Mouhamad la gën te du jéggi nit. waaw maanaam sëmbar garaamu. loolu bokku ci adab bokku ci teggi. yooyu kat doomu diw tax na nga ne da nga doomu diw dañ koy xamee ci yar ak teggi doomu diw dañ koy xamee ci njub ak mbaax. mais dugg ci jàpp di jéggi nii rek bokku ci teggi ci rëy la bokk dañ ciy bàyyi xel. te rëy baaxut rëy day waral nga dugg safara day waral nga dugg safara du dugg génn yawma yu'radu alladhina kafaru ala an-nar azhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهول بما كنتم تستكبرون في الارض بغير حق وبما كنتم تصحون باو كنا نجي باي وعاد لين هلكوا دويلا فأما عاد فاستكبروا في الأرض بخير الحق وقالوا من أشد منا قوة يلا قولوا يا أنا لا أنا لا الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون يا نه وأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولا عذاب الآخرة أخزى هم لا يوصلون في الأرض والتي بايعت وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض يعني لو ما كانوا سابقين بالمرء قال الجاب كلنا فكلنا أخذنا إذا سنة بايعت bàkkaar la xam ne képp koo xamante ni mu ngi sa xol nga koy def safara mooy doon sa dëkkuwaay moom doy ñu bàyyi si xel ak loo mën a doon ak foo ko mën a doyee nekkal Cherif nekkal Ndaw nekkal Mbak nekkal Si nekkal Ñas nekkal Njaay nekkal Jóob loo mën a doon rek moom foog mu bu mu sa xol safara ngay yeewoo yow sëñ bi jàngul ñu توابع لله باستعمال لعلمك الأعلى من الكمال تسلل لعزة المقتدر لعالم الحس من المحارم وكثرة الجدال والمياه ولود بلته كل موري والسر أبري من الشقاء يبكي منطقة هذه في بري ويرده mandarga la ci moom texee ku bëri daal di ci diine mandarga la ci moom texee ku bëri di yéem jëf boppam mandarga la ci moom boo gisee ne kii texaat mooy lii képp koo gis muy rëy luy dem mandarga la ci moom ne kii texaat na ci moom xëy na yëpp bi lañu tey yéen nag njabootu sëñ bi bàyyi xel ci nga njabootu sëñ ndax moo doon wax ne képp kuy wax ashhadu an laa ilaaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah man xamoon sa bàyyi la kon nag si bàyyi ñi digal te toroxlu la ñuy digal mu mel dafa bëgg guddi dafa bëgg guddi ñu ñu ñu ñu tëj suñu waxtaan foofu rek ñu bàyyi xel suñu bopp xam ne ay mbokk ay mbokk dañoo war a yërmante yërmanante ndax ku dul yërëme duñ la yërëm ay mbokk dañuy war di jéggalaat pour jéggale duñ la jéggal dañuy bàyyi xel ay mbokk dañuy war di sukuraalaat ku sukuraalu sa mbokk julit ëllëg yàlla du la sukuraal loolu lañ ci bàyyi xel yii yëpp ay dénkaane la yoo xamante ni mu sama wax de ah ah damaa neex ni xasuma kenn waxuma ngi kenn may wax xaaral laaw la wax قال رسول قال العلماء قال هو bëgg nag wax ji doon wax juy jëriñ loolu kese la sëñ Mutiba li fi jàll rek doyoon Ahmad li fi jàll doyoon xëy na yëpp nañ fexe rek di ko jëfe waaye nañ ci jiit nag ñu borom xam-xam yi ndax atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al kitab afala taqilun sëñ bi jàngale ni fii ne xool xool deuxième xool dafa araam mais yow da koy def waaw da ko xool soo ko takk xool xool kon nañ ci jiitu yonent bi nee na borom xam-xam buy jàngale borom xam-xam buy jàngale te jëfewul xam-xamam dama mel ni sondel rek sondel sondel boo ko taalee

kilifa gi yàlla yàggal ko fi lool mboole may rafet dañu am jàmm yàlla mën na ko yàlla ko def xol yi yal na yàlla setal ko raxas ko woon set wecc ba génnee ci nooneel ak bañeel ba naqi qalbi min salbi wa zulmatihi ayaa mooy yooyu yëpp yàlla wàcc si ñun jàmm yàlla nekk si ñun salim ayaali wa ixwaana tariqatina wax la diine ke yaa salaam yaa Allah yooyu yëpp yal na yàlla sotti ko suñu xorma yonente bi maqaam Cheikh Tidiane barke si dara jamono allahumma salli ala sayyidina Muhammad